عود الله في بيت الله safiya ñu tuddu yàlla loole war la te ñu wa yàlla ñépp a nga naan kaar jubleen ñu def kaar ñun de suñu butoor ñépp a nga ñi naw teg ñu sa seen kaw yaa ka waral yaw jox ñu qur'aan dolli ñu imaan war nga ñu ihsaan yal na nga yàgg sa yéene yàgg ñun ñoo la bëgg yal na nga yàgg ñoo ngi fii ci quartier Madiana ci benn ci daara yi alxuraanul karim yi nga xam ne soxna maam Marème Mbacke bintu Serigne Souhaïbou moom moo ko yor muy daara yi almanahilu saafiya di daara joo xam ne dañ fiy jàngale alxuraanul karim di fi yar yarub lislaam soxna si nag yore ay daara yoo xam ne am nay góor ak i jigéen yoo xam ne dañ leen fiy taxaw ci seen diine dañ leen fiy jàngal di leen yar waaye nag góor ñi seen daara bopp lañu yore ak ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi ñoom it ñu beral leen seen daara bopp mu nekk organisation bu am solo boo xam ne taxawal na ko lépp rek ngir sàmmonteeg lislaam audu billahi min ashaytaani الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو عصف وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان sadaqallaahu al-aziim gone yi nag ñu leen di taxaw bu baax a baax ci seenug diine rawatina ñi nga xam ne ñoo di gone yu jigéen ñi soxna maam Mareem bëgg-bëgg moom moo di jàngal alxuraanul karim ak yar ñi nga xam ne ñoom ñoo di gone yi li leen mu doonee ci waa juróom wa di sëriñ Souhaïbou Mbacké aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi ddin yi ñoo leen di nuyu di leen ziyaar bu baax muy mbokki daara ji su ma waxee mbokki daara ji nag euh, soxna maam Marème mu suñu champs mii di fi suñu kilifa ci moom laay tàmbalee jiite daara ji di ci teg soxna yi daara yi muy soxna yi fiy jàngale ak ndongo yi di leen nuyu yéen waa Assalaamy TV ci seen njiit Serigne Fallou Galass Sylla ak équipe bi fi andi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm ci daara ji ñu leen di wax tuuti rek ci daara ji. muy fii ngeen ñëw nii fekk ñu fi muy daara almanahilu safiya di ji daara joo xam ne mi ngi ci ron njiital soxna maam Mareem mu sëñ bu buñ ne soxna maam Mareem mu sëñ Chouhaïbou rek doy na sëkk ñu xam le ne daara dëgg daara ngeen fi fekk ndax la nga xam ne moo taxoon maamam bu tedd ba ñëwoon fi muy Cheikh Ahmadou Bamba muy euh, alquran ak sunna tasaare lettre yonent bi sallallahu alayhi wasallam loola rek moo taxoon liggéeyam bu metti bi nga xam ne jànkonte na ci ak lu ne loola it bàyyam bu tedd ba di Serigne Souhaïbou bu féetewoo loola muy ab jagle boo xam ne luñ ko jaglee la moom Serigne Souhaïbou bu ndax képp ku wax alquran ci yoonu murit di nga tudd Serigne Souhaïbou bu soxna maam Marème mii nag bokk fa kon moom mooy borom alquran daara ji nag Euh, manaahilu saafiya gi ñu ko tuddee mi ngi jugee ci làmmiñu ku tedd ka Cheikh Salihu Mbacke yal na yàlla yokk ko ay leer moo ko joxoon soxna si euh, ngir mu tuddee ko daara ji kon daara ji barke rek lañ fiy séentu incha allah daara ji nag euh, wala boog fu fu sori la tàmbalee ndax soxna maam Maram mi mu sëñ Cheikh bi nga xam ne moo jiital daara ji yàgg naa jàngale ndax ca jamonoy sëñ Chouaïbou ma ngi doon def métier mii ndax xam na ne métier mii moom la bàyyam gërëm moom la Serigne Touba it gërëm ndax sëriñ Touba li mu ñaanoon ci euh, téeram ba nga xam ne mag ña ñu ngi ko tuddee woon làkkaw Touba euh, mi ngi ci doon ñaan ne euh, wajaxalhu dëban maskana taallumi wa mawdal fikrati wa tafahumi doon ñaan yàlla suñu borom dëkk bii nga xam ne mooy Touba nga xam ne moom la yàgg a xemmeem ba yàlla may ko ko bam koy sanc ñaanoon na suñu borom ne ko na ko def mu nekk euh, dëkkub xam ak xamle ak dëkk boo xam ne euh, lépp loo xam ne lu baax la rek ñaan na ko fi waaye loolu jiitu woon na ci kon bu ko ñaanee mu doon dëkkub lu ak xamle képp koo xam ne nii yaa ngi bay sawaar ca loolee yaa ngi ca la ko neex euh, moo tax soxna Mame Marème yàgg na caa bay waaram ndax ca jamono sëñ Chouaïb bi mi ngi doon def métier mi ba yàlla dogal bi mu ñëwee ko sëñ Fall moom sëriñ Mourtala euh, wóyal fa it njàngale ma fa la tàmbalee daara ja ñu koy jox ay tuut tànk ak ay mag képp koo xam ne nii euh, ay waajuram bëggoon na mu defaru rek moo xam ay mbokki boppam bu mu ne mbokki boppam nag ñi mu bokkal sëriñ Touba ak euh, sëriñ sépp ñi ngi ci mbokki taalibe ñëpp rek yaakaar ko ndax lim ko jël def ko métier ñu koy jox seeni eh, doom ba yàlla dogal dem ba daara ja xaw a yaatu ci la demee kër soxna Asu Gaawaan Gey ci eh, ndigalu Serigne Saliou bam fa demee it ba daara ja gën a gën a yaatu it ci lañ ko mujj defee ay daara yu bari nga xam ne am na fi daara fi ngeen ñu fekk nii muy bërëb boo xam ne bërëb bu barke la bu barkeel la ndax ca sañc Tuubaa bu njëkk ba sëriñ bu mag bi fii nekkoon na ci ay nekkuwaayam muy bërëb bi ngeen ñu fekk nii daara ji bokkoon na ci euh, fu mel ni Aliya Aliya tamit am na fa daara euh, euh, su tout tànk yu góor yooyu ngeen gis tamit ñu doon jàng léegi seen daara mi ngi fii ci ginnaaw sorewut ak fii ñoom tamit dañoo ñëw ngir xataay waxtu wi rek ñu ñëw ñoom it am na yit fële ca kër sëñ bu Bousso it am na fa daara ba kër sëñ Chain bu nga nga xam ne nii tamit mooy këram di kër sëñ Chain bu googa it am na fa daara yëpp doon ay daara yoo xam ne daaray góor ak daaray jigéen ay tut tànk ak sax nag ay mag ñoo xam ne nii euh, seeni waaju bëgg nañ ci ñoom leerug alquran ñëpp ñu dajale leen fa di leen jàngal waaye tamit di leen yar yarul islam yemuñu rek te di leen jàngal alquran waaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di jàngal jàngalu yaru islam te bu ngeen gisee ci image yi nii rek xale yi ni ñu toogee xam ne ñi yemuñu rek ci jàngaleen waaye yar nañ leen ku ci nekk bu dee ci jigéen ñi la lislaam digal ci mm, sàng saw yaram say cër ak tamit ca toogin waak yëpp rek macha allah soxna si def na ko ci ñoom ànd ko tamit ak soxna daara yi nga xam ne nii ñooy ay jàngalekatam waaye euh, coono boobu nga xam ne wala boog daara yooyu ñu fi tudd yëpp ku ne xam ne ne yor benn doom rek bu benn xale rek coono bu mag a mag la ñi nga xam ne yor nañ doom xam nañ ci dara kon nag boo dajalee am mboolo loolu coono yi neen la rawatina di def ci ñoom loo xam ne ni yombut muy alquran di leen jàng alquran di leen yar waaye boole ci ak dundu gi te jamono toll na foo xam ne nii dundal benn rek jafe na rawatina dundal am mbooloo kon soxna si yooyu yëpp doon ay coono yoo xam ne mi ngi ko mi ngi ko mi ngi ko jël coono woo ko ngir rek euh, di ci séentu payug yàlla waaye tamit di ci séentu ngërëmal maamam mi nga xam ne dara gënalu ko woon ci kaw suuf alquran alquran rek mu la defoon muy léppam kanzil kitaab wal xadis wal adab laa jamoo fiddatin wala jamoo zahab nee na koppar fooram mooy alquran ak sunna ak xadis mooy sunna waaye nekkut ay or wala boog ay gànjar wala yu ni kon koppar foor ak euh, fu ñu ko waxee ni muy fooree ni muy chere Serigne Touba neen mës nekk alal mës a nekk mm, poñantum àddina daray àddina Euh, koppar foram lu dul alquran kon alquran jooju nga xam mooy koppar foru Serigne Touba soxna si jël ko di ko def ci xale yi ku ne xam ne loolu coonom neen la coonom du ci mën a ñàkk waaye nag coono bànneex lay doon tey it mi ngi koy bànneexoo bu baax a baax euh, loolu moo tax wax dëgg euh, fi ngeen ñëw ñun ñi nga xam ne nii ñi ngi toog fii ñun ñëpp daa ay soxnay daara lañ yoo xam ne nii ñenn ñi jaar nañ ci loxol bàjjen mi doon jàngale ci daaraam mu def tamit ci ñun ñëpp yar boo xam ne fu ñu dem wax dëgg ñu naw ñu te moom nag wax dëgg ku ko xam sax nag xam ne lii rek la mësa bëgg lii rek la bëgg ñii rek la bëgg muy waa alquran ñoom rek la def ñuy waa këram ñoom rek la def ñuy ay àndandoom ñoom rek la def ñuy ay soppeem ndax ku ne xam na ne foo ko mën di fekk moo wax muy këram wala foo ko mën di fekk ka nga xam ne mooy jàngalekat alquran bu ñëwee cër ba mu koy jox daanaka du ko jox keneen dina ko teg fu kawe dina maslaak moom jox ko cër bu ba bu kawe kawe kawe te loolu cër bi mu jox alquran rek lay wane euh, gëdd gi mu jox waa alquran lay wane tax soxnay alquran wala soxnay daara yi nga xam ne ñu ngi jàngal alquran ak xam-xam yi ci dëkk bi yëpp daanaka ñu ci bare bare boole na leen ci benn association benn mbooloo moo xam ne mbooloo moom it ñu ngi leen tuddee ba tey almanaahilu saafee ndax comme ci Serigne Saliou la tudde woon tur woowu barkeel tax mu jox ñu ko xam naa soxna Fa Mbaye incha allah dina ci wax kon daal ñu leen wax ne daara ji ngeen fekk si soxna si ngeen fekk si waaye alquran ngeen fekk si kon ñooñu yàlla ngeen fekk si waaye alquran ñooy waa alquran ñooy ñooñu yàlla euh, kon waa ngeen fekk si euh, waa daara ngeen fekk si ñuy wax ñëpp rek képp koo xam ne mi ngi ñuy dégg di ñu seetaan ñuy sàkku ci ñoom bu baax a baax ñu gën ñoo la soxna si yàlla gën koo dëgëral gën a yàggal ab taxawaayam ndax référence la ci ñu ndaw ñi rawatina waaye référence la ci mbokkam yépp ndax euh, képp ku mu bokkal yaakaar naa lii rek moo waroon doon sa yitte ndax ñoo xam ne kaleen may lañu am lii rek la mës bëgg lii rek la gërëm mm, te su ko neexoon nit def na ñëpp wala def ñeen ñenn ñi euh, am ay bërëbam tabax ko ay yu rafet di fa dalal ay VIP ñu koy way ci télé ak rajo yi waaye moom ay bërëbam yëpp alquran rek la fa xemmeem kon ñu ngi ñaan ñëpp gën ñu ko ñaanalal ñëpp it gën a jàppale daara ji ndax euh, ku ne xam na ne ni ma ko waxee woon léegi yor genn gone rek coono dëgg la rawate nag yor ay daara kon képp koo xam ne ni lu baax ñor na ko it ñi ngi ñi ngi ñi ngi lay wax ngay bàyyi xel bu baax a baax a baax daara yu mel nii ngay bàyyi xel bu baax a baax a baax jàngalekati daara yu mel nii ndax dajale ay nit ñu baree bare te ñëpp yaakaar rek indi leen fi ngir yar ak jàng euh, te lépp loo xam ne ni coono la di leen fa fekk it ndax coono yi daara moom kenn du ko leeral kenn ku nekk xam na ko ndax ku ne dina dëkk ak euh, waa alquran wala ku ne dëkk naag daara ci wetam ku yoru dëkk naag daara ci wetam ku ne xam na ne ay coono yi neen la ci côté yëpp nag kon euh, xam naa dañuy yemale foofu kàddu gi rek. daara ji am na ay ndeyu daara yoo xam ne ñoo ànd soxna maam Marème Mbacke di ko jàppale bu baax ci liggéey bi mu nekk ndeyu daara yoo xam ne dañoo organiser wu di taxawu ndongo yi bu baax a baax rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di jigéen ñi naaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñu ngi mbooloom ñi nga xam ne ñoo fi teew jiital nuyoo beek siyaar bi ñu ngi ci jiital soxna maam Mareem moom sëriñ sony bu di ko ñaanal fan wu gudd ànd ak wér ñaanal ko mu yàgg fi lool fa bëgg a egg ak liggéey bi Seex Ahmad Bamba Xaadim Rasul maamam na ko suñu borom eggale mu ànd kook mbooloom ñi nga xam ne ñoom la ko àndal ñu ngi koy sant bu baax di sant bu baax soxna Faambay soxna Awa kàddu yi am na solo matale na sant bu baax di sant tamit télé bi nga xam ne moo fi teew si tey di télé sëñ Fallou Gala Silla ñu ngi koy sant bu baax ak ñi nga xam ne ñoom la fi yebal ñëw teew si ci daara soxna maam Marème ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax ci kàddu nday daara yi soxna Aminata Silla sunu yaay ndey daara ak soxna Absa Ndiaye ak soxna Fatou Waaj ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne nag mbooloom ndey daara yi ñu àndal ñu ngi laxasaayu rek di liggéeyal alxuraan waaye lépp mi ngi ci li ko waral mooy soxna maam Marème moom sëriñ sooy ndax moom moo bëgg alxuraan comme ni ko ñëpp waxee dañ koy ñaana rek yàlla yàggal taxawaayam ndax bu waajuram moo delsi woon jamono du sensé toogaay alxuraan rek mooy li ko ñor alxuraan rek la bëgg mu ngi gindi ay doomu aadama ay tuut tànk waaye noonu lay gindee tamit ñi nga xam ne ay mag lañ ndax ñi nga xam ne jànguñu alxuraan xamuñu ko képp koo xam ne suñu borom def na nga xamanteeg moom rek dana la digtal ci li nga xam ne mooy alxuraan lépp loo xam ne rek kii na ko ci dana ci góor góorgóorlu ci yow ba da nga ci xam sa diine xam ci sa lislaam kon ñi ngi koy ñaanal yàlla yàggal ab taxawaayam li nga xam ne nag mooy daaray alxuraan moo ko ñor ba tax na xamul naaju tàng na xamul kër gi sedd na fu mu toll mi nga laxasaayu nekk ci daara yi seen wàllu tëdduwaay seen wàllu xeewlu seen wàllu lépp loo xam ne lii rek luy jàppale alxuraan la wala luy jàppale ndongo yi ci la nekk ñuy sàkku rek képp koo xam ne kii yaa ngi seetaan télé bi nga ñaanal ñu soxna maam rek moom sañu sooy bu fa mu bëgg a egg ak alxuraan fépp suñu borom eggale ko yal na gis ci alxuraan lu koy njortam ci barki sëñ Tuubaa ñi ngi wax nag ne képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan télé bii tey dégg suñu kàddu dañ lay tàllal loxo ñu ndey daara yi ndax amuñu lu dul alxuraan ndax alxuraan mooy li nga xam ne bu ñu jàqee ci la ñuy jëm bu ñu ci la ñuy jëm bu ñu toogee ba jëmmi jamono réew mi jaxasoo ku fi mën a toog ci xalifa danga naan nañu woote kaamil alxuraan yi ñu jàng ko woo sëriñ daara yi ñu jàngale alxuraan ñu jàng alxuraan wàccee kaamil yi nit ñi kenn ku ne sam xel dal kon nag na ñëpp jàpp ci alxuraan ji rawatina nag ñi nga xam ne nday daara lañ fépp fu soxna nekk rek ñu ngi lay tàllal loxo di la wax ne nga jàpp ci li nga xam ne mooy daaray alxuraan ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp fan gudd ànd ko wér fii nga xam ne nag mooy daaray Madiyana ñu ngi ci laxasaayu di góorgóorlu ak fépp foo xam ne fa la daara nekk di di aaliye mbooloom daaray soxna yi rek ñu ngi ciy góorgóorlu di ci def li nga xam ne mooy sunu kimtulaay kàttan waaye ñu ngi ciy sàkku tamit ndimbal fépp fu waay nekk te alxuraan ñor la ngay jàpp ci alxuraan nang nu jàppale nag ci daara soxna maam mare moom sëriñ son bu mi nga xam ne dara ñoru ko lu dul alxuraan bëggul lu dul alxuraan yal na ko yàlla kàttanal yal na barkeb alxuraan wàcc ci kawam ci barkeb alxuraan أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا sadaqallahu alazim soxna maam Marème Mbacke bintu Serigne Souhaïbou bëgg gi nga xam ne bëgg na ko alxuraanul karim moom moo tax sax mu taxawal kuréel goo xam ne ñu ngi ko dëppee almanaaxelu saafiya nga xam ne dafa ngànk mbooleem jàngalekatu alxuraanul karim yu jigéen ñi ñu àndandoo doon benn di nasandoo mboolem lépp lu ñuy def. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi salallaahu alayhi wa di jiital si nuyoo bi ziyaara bi soxna maam Maram bintu Seex Sohaybu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér suñ borom may ko kàttan may ko wér ba nga xam ne liggéey bi nga xam ne fas yéene na koo liggéeyal maamam si dëkk bi mu yar ak jàngale. suñ borom jàppale ko ba mu lépp loo xam ne bëgg na ko si rek suñ boroom defar ko ko defal ko si lu kawe njorteem fi soxna maam bu awa bu sa euh, taam daanalee rek foofu laay tàmbalee ndax fonk alxuraan ak fonk ñiy jàngale alxuraan ak ñiy yar tax na ba mu taxawal jamaaya boo xam ne si xalaatu boppam na ko xalaatal taxawal jamaaya ba tuddee ko almanaahilu saafiya ñu barkelee sutur bi nga xam ne Cheikh Saalih radiyallahu taala anhu joxoon na ko ko si làmmiñu boppam bi nekk tuddee ko daara ji mu tuddee ko jamaaya bi jamaaya bi nag macha allah biñ ko soseeg léegi mi ngi bëgg a am ay ay ay ay at mu dajale si képp koo xam ne dangay jàngale alxuraan si dëkk bi nekk jigéen ñu koy def weer wi nekk ñuy dajee këram macha allah mu si sonn lool di si kontaan di si am fierté comme ni ko ma awa waxee rek moom bu sañoon jàngalekata alxuraan yi lay toogal ñoom lay da koy wax sax saa su ne bu ñëwee réunion ba nga xam ne ñu ngi tàggoo di sàkku ñaan danaan su ma sañoon ngeen toog ndax su ma sañoon fu ma geesoo dama leen di gis loolu bëgg alxuraan ak fi mu teg alxuraan ak fonk gi nga xam ne fonk na alxuraan moo waral loolu lépp comme ni ko maa aw waxee nag waroon mën na ko see bañ a fekk waaye nag day cëram ndax yàgg na si ndax ba muy yor daara ji kër sëñ Fallou mu Cheikh bi ma ñëwee si kër Cheikh Mourtala si kër sëñ Lamine sëñ mi def na ma jël naa la teg la si loxo soxna maam Maram mii na nekk sa naw la nekk sa référence dee ko roy ba ma demee nuy ju ko la ne ma damaa bëgg ñu taxawal daa daa daara daayira boo xam ne weer wu nekk dañuy jàng dajooy fenn di jàng alquran bañ demee ziyaar ji sax Cheikh Mourtala waxal ko ko mu kontaan si lool jox ñu mbaaru boppam boobu li ñuy wax lenn lu nekk du asaar mbaar moomu Cheikh Mourtala joxoon ñu tey jii saa yu ñu wootee njàngam alquran si dëkk bi si jumaa ji fa la ñu waa Rabita bi di féetale di ñu fa fekk saa su nekk sëñ Mamoor di ñëw di ñu fa fekk jigéen ñi si dëkk bi ñëpp di fa dajale di jàng alxuraan kon waxi nit ku baax du hasard te du ay caaxaan loolu yëpp nag ñu ngi ko si sant di ko si gërëm ndax ba noonu ak see bañ a fekk mën naa yor ak daaraam wax dëgg yàlla comme ni ko maa waxee rek daara yu bari te fasantikoo la yore si carte yoo xam ne wuutee nañ yée ngi daara ko dóos yée ngi man yaana gi ñu nekk yée nga aaliya mu dajale fa ay góor ak jigéen di leen jàngal di leen yar di leen teg si yoon macha allah xale yi ni ñuy jàngee alxuraan noonu la ñuy jàngee xasida seen Tuubaa yi macha allah di ko mokkal di ko tari di ko duru saasu ne bañ na ko ba buy jàngalu kaamil sax jàng kaamil du jotee ay walisi walisi xasida lay ñëw teg buñ jàngee si alxuraan ji ba sonn wëlbati ko si xasida yi di jàng loolu rek mooy yitteem looloo ko ñor looloo ko saf bañ na ko ba nga xam ne ni comme ni ko euh, soxna ma aw waxee jàngale jàngalekatu alxuraan du la xeeb du la du la tuutal du la sewal bañ na ko màggalu sañ sañ bu jotee fa muy ndogoo fanaan la fu jàngale sa alxuraan sama sañoon sama gestoo ñoom dong laay gis ku ko si tàgg mu déye la lijjantiwul kay takk or lijjantiwul borom 4x4 yi lijjantiwul borom euh, étage yi moom jàng alxuraan moo ko saf ak njàngaleem alxuraan loolu nag ñu ngi ñaan di sàkku ñaan comme ni ko maa waxee rek képp koo xam ne yaa ngi seetaan télé bii di Assalaamy TV si jiitalu Serigne Fallou Gala Sylla ak ñi nga xam ne ñoom la fi yebal képp ku seetaan émission bi ñu ngi ñaan nga ñaanal ñu ko suñu borom bàyyi ko fi mu dund at yu baree baree baree baree bare si barke alxuraan ba liggéey bi nga xam ne fas yéene na koo liggéeyal maam si dëkk bi suñu borom may ko kàttan ba mu yeggale ko si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal comme noonu ma koy defee rek ni ko soxna maa waxee ay jàngalkat yu bari génnee nañ si daaraam ji dem ubbi waa seeni daara kon nag liggéeyam bi yal na ko Sëriñ Tuubaa gërëm yal na ci daje ngërëmu Serigne Touba ci barka alquran barka Cheikh Sang bi nga xam ne moom la Serigne Touba cëralee woon jàng jàngale nga xam ne moom doo nga nekkoon yitteem macha allah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu xam naa ma jox kàddu gi soxna xaaritaam bi nga xam ne euh, bokk na si yaay daara yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi ak ñoom yaa ak sa njaay mii nga xam ne ñoo koy jàppale si xale yi fóot meeg bala meeg raxas meeg yu mel noonu macha allah. liggéeyub daara yi nag su àgsee fii. soxna Maam Marème Mbacke bintu Serigne Souhaïbou def na ci liggéey bu am solo waaye ci ndimbalul mbooleem jàngalekat yi nga xam ne ñu ngi jàppale soxna si ci liggéey bi. turu soxna si nag laay wax nee na mi ngi gërëm di sant bu baax a baax ñi nga xam ñoo nekk si daara ji toog fi te di ko jàppale mooy jàngalekat yi nga xam ne ñoo ko ñoo koy taxawul xale yi di def si ñoom li nga xam ne moom loo bëgg a def si xale yi wax dëgg yàlla ndax ku nekk xam na ne jàngale metti na. xam na ne àq ba mu leen war a yore sax dëgg dëgg dëgg manewu ko na mu ko bëggee waaye lu nekk na yéene ne leen ko si àddina mi ngi leen di ñaanal tawféex ak ndimbalu sëriñ bi bu baax a baax yal na leen yàlla jàppale taxawu leen may leen wér may leen gudd fan mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm soxna daara yi fi nekk ñoom ñëpp si njiitalu maam Marème Ndiaye maam Jaxate ak ñoom moom mi Mbàkke ñi nekk fi ñoom maam jaara ñoom ñëpp ñu góor ñi sëñ Murtala Wàdd ak sëñ Baara Sëy ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk si daara góor ñoom ñëpp mi ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal di leen gërëm kuñ si limur nag na nga xam ne na nga xam ne eh, njuumte la ndax mënta tudd ñëpp waaye ñoom ñëpp nag ay turam mi ngi si xelam macha allah mi ngi sant bu baax di gërëm waa jamaaya bi nga xam ne fu mu wootee ñu ñëw toog si wetam ndax xam ne temps jamono ji naqari na te eh, jamono ji xat na waaye dañuy bàyyi seen lépp ñëw toog di sant di gërëm ku mel ni soxna naan ndooy mi nga xam ne mu ngi jógee ba eh, ba ba xayra soxna soxna loo mi jógee ba Gede ñoom Tahiratu Diop ñoom soxna Ami Cissé mi nga xam ne bu ne un rek ñoom ñëpp bàyyi seen yitte daal di ñëw toog si wetam di ko jàppale ji nga xam ne tudd na leen ndax am na ñoo xam ne teewoon nañu waaye taw bi asamaan si naqari moo tax ñu delluwaat ñoom ñëpp bàyyiwul kenn taw ba caat cat ba cat comme ni ñu koy waxee ñoom ñëpp mu ngi leen di sant di leen gërëm ku mu tudd ku mu tudd di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi sant bu baax moom mi Mbàkke mi nga xam ne doomam la nekk si daara ji macha allah bu ko neexoon nag Eh, nekk si leneen nag si li moromam ñay nekk di sañsee ka jaaga jaaga di dem Dakar ko di dem ko dikk tam waaye mi ngi toog di jàppale waajuram ñu ngi koy ñaanal moom it suñu borom may ko wér taxawu ko barkeel sëyam bàyyi ko borom këram di sant Serigne Saliou mi nga xam ne moom tamit bàyyi faali soxna si lañ ko mën a tuddee ndax day takk ndigam rek nekk si wetu soxna si lu mu yëngatu rek mu nga sa gertam mu nga sa ginnaawam te wax dëgg yàlla ku nekk xam na rek ni ñu koy waxee rek kenn mënta wax lépp waaye nag jund doy na borom xel ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp suñu borom taxawu leen ndax wax dëgg yàlla lii ñuy def nii defaluñ ko soxna si seen bopp lañ ko defal ndax man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zalaamin lil abid bu leen neexoon si seetaan seen yaay waaye defuñu ko ñu ngi koy jàppale defuñu ko sax waajur sëriñ lañ ko def kon nag yal nañ ci dajeeg ngërëmu sëriñ bi yal na leen yàlla taxawu jàppale leen ñu ngi ñaanal ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi yeewoo si daar ji ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak ndimbal ci barke alquran barke sëriñ Touba kon xam naa ñu soxna si daal di def ñaan soxna maam Mare Mbàkke mi ngi yaatal bu baax a baax liggéey bi jëm ci njàngale alxuraanul karim ak yar loole moom moo tax muy taxawal yeneen daara yoo xam ne incha allah dafa fas yéene yaatal liggéey bi bokk na ci daara ji nga xamante ni moom moo nekk ca Madiana 6 ci yoonu Daarul Muxti bi ñépp nga ñi naw teg ñu sa seen kaw yaa yaw waral yow jox ñu qur'aan dolli ñu imaan war nga ñu ihsaan yal na nga yàgg sa yéene yàgg ñun ñoo la bëgg